bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi santaat borom bi subhaanahu wa taala julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna Ahmadul Xadim di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram di amaat mbégte nag di toog ci jataay bii nga xam ne jataayub mbégte la waaye jataayub sant yàlla la feggoo ak jëmm ju di jii di sëriñ Mouhamadul Mahfous bintu soxna may moom soxna Maymuna Mbàkke bintu Cheikhul Xadim mu feggoo ak sëriñ Abdou Lahad Mbàkke moom soxna Baali moom soxna May moom sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waaye feggoo ak Baay Cheikh Awa Balla ci ndigalul sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa waaye nag ci kilifteefu mbooleem njabootug maam Ceerno Ibrahim borom daarul moxti gépp waaye ak mboolem njabootug Cheikhul Khadim gépp bokk yi xam ngeen ne bis bu màgg dëgg malaat na muy bis bi nga xam ne moom la caatum Cheikhul Khadim ma ka ganee woon àdduna ci atum 1925 ca njaareem di soxna Maymunatu Mbàkke bint Cheikhul Khadim daan wooteel Serigne Touba muy guddik laylatul xadar gi nga xam ne moom la sun borom wax ne xayrun min alfi shahrin bis boobu nga xam ne ba mu ko dikkalee ca daarul mooti fa la togge woon yaari ginaaram ya ca daarul marnaan ñëw Touba fekk fi magam ju tedd ja di sëriñam ba di Cheikh Mahamadul Fadal Mbacke mu teg ko ci loxoom mu ne ko may mu ne loo jublu ci lii mu ne ko damaa toggaloon sëñ Bamba ab reer ci guddig laylatul xadar di ko ko yët te yaa fii sëriñ Bamba mu ne ko may mu ne bis bii dana dem ba ëpp say loxo da nga ci rey ay gëléem danga ci rey ay ginaar bis boobu nag moo dëg dëg malaat te kuy liggéeyal sëriñ Touba ci alxuraan nga ko war a tàmbalee moo tax weeru koor bi balaa teru sëriñ Mahamadul Mahfous dana ànd ak njaboot gi di sëriñ Cheikh Abdoul Ahad ak soxna Aïssatou Mbacke ñu waraat daara yi séddale fa mbooleem lañ leen war a jox ba noppi nag santaane waat njàng moomu bis boobu nag moo war a dëgg malaat war a nekk fukki fan ak juróom benn ci weeru koor dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril ginnaaw bu sëriñ bi demee ci sëriñ Mouhamadul Mountakha sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jokkoo ak moom lam ko wax moom la sëriñ Cheikh Abdoul Ahad fas yéene yëkkati ngir woote bis bu tedd boobu nga xam ne moom la ñuy waajal tam nekk ci sunu mbokk ji di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu. nuyoo bu gën a tedd di ca jiital kii di suñu wayjur di suñu sëriñ di sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf mu di Cheikh mu taxa di ca teg mboolem njabootu sëriñ Tuubaa yépp di ca teg mboolem mbokk yépp di ca teg mboolem cheikh sëpp mboolem taalibe yépp la ko dale ki sëriñ si Abdou Lahad jaar ci sëriñ Bassirou Anta Niang jaar ci Alaaji Maam Cerno ba ci ki gën a tuuti ci yoonu murit di dellusiwaat tey jii rek ci weer wi nga xam ne day weeru tedd di weer woo xam ne weeru yërmande la di weeru njëggal di weeru gore ci sawara ñu ko addis yindee di weer woo xam ne weeru Sëriñ Tuubaa fonkoon la ba nee nañ bu jub siwaan lu ko waay laaj dalaal naan xanaa dama ko danga koy teeroo sama gan gi weer woo xam ne ñëpp xam nañ ne musaan dikk ca njaareem sëriñ bi kër gi day fanaanee riir ba bët set kenn ku nekk nekk fi barab nekk dara di jàmm yàlla di weeru alxuraan wante itam di weer woo xam ne nag mooy weeru guddi gi Laylatul Qadr muy guddi gi nga xam ne moo gën fukki weer moo gën junni weer guddi googu nag soxna may mën a bintu xaadim rasul tànnoon ko ngir liggéeyal ci waajuram àndoon ko ak ka nga xamante ne bii mooy magam ju baax ja di cheikh naa cheikh Modou Fadal defoon ci ñaari ginaar dem ca yóbbul ko ko jóge Daaru ci fekk fii ci Touba xaaju guddi sëriñ bi dogul ca lam ko dogul ba tey ji bis bi bokk ci bis yi nga xam ne ci bis yi gën a rëy ci bis la bokk bis boobee nag. moom la Cheikh Mouhamed Mahfouz di wéyal nanga xam ne noonu la ko soxna si daa defee waaye soxna si tam lam daan def moo di nam ko defoon ki sëriñ Fallu noonu la ko seqoon ak mbooleem ñu ko fi ñu fi wutu woon ñëpp mu di Cheikh Abdou laxaat ak sëriñ Saliou sëñ bi itam muy sëñ Mahfouz bala moo def dara dana ba ci ki fi nekkal sëriñ Touba laaj ko ci ndigal ba mu ko defee ba noppi mu woo ma ne ma gannaaw yow yaay jiite liggéey bi yaay président comité d'organisation bi dama bëgg nag nga wax ak sëriñ bi mu xool ban doxalin la bëgg ñu doxale ko noonu mm-hmm. ba démb di fukki fan ak ñeent ci weeru avril ci 23 heures 45 sëriñ bi ne ma muy Cheikh Mamadou Mountakha ne ma sëñ Mahfouz ñëw na fi laaj ci ndigal jox naa ko ndigal waaye nag mbirum doxalinu màggal gi day man ak moom jotuñu see wax ndax jataay ba dafa xat waaye nee ko lépp loo xam ne mooy njàngum alxuraan mi nañ ko yokk lépp loo xam ne mooy njàngum mi nañu ko yokk lépp loo xam ne mooy bernde yi nañu ko yokk lépp loo xam ne mooy jataay yi nañu ko yaraaxal ma ne ko ah moom de Mbakke ñun sax dañ doon xalaat ba nga def benn tànt ci mbedd mi xalaat nañu itam ba nga def cérémonie officielle bëgg boo boo xamante ne ndaw yi président Macky Sall agsi nañ ci sëriñ bi mu recevoir leen kii saal ba ca suuf nekk ca HLM waxtaan fa ak ñoom mu jox leen fa ay kàddu santante suñ mu daxaa jëlaat kaddu gi ne ma waa ji loolu yi doon na sëkk ci ak wàññi daal la koy baamuwaat ne ma loolu yi doon na sëkk ci ak yi bu dee ziyaar yi ak daayira yi nag loolu moom kër gu ne am na ko dal ne ma tal ki tegaat mu Cheikh moom ndaxaar ne ma ñoo sëñ Mahfouz ñoo koy ànd ci ba na mu jeexe nañ ko daa defee lii la ma sëriñ bi wax loolu moom lañ jot li mbooleem mbokki taalibe yi kon ñu xam ne li nga xam ne moo jëm ci alxuraan yi loola nañ ko daan defee bari woon na lool ndax ci at mujj mi mat na dix-sept mille trois cent kamil muy fukki junni ak juróom-ñaar ak ñett téeméer yoo xam ne sax tegal na aslëf jàng nañ ko ci li nga xam ne mooy daara alxuraan yi man na téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent yoo xam ne konte wuñ daara yi nga xam ne dañoo bootu ci ay kilifa ndax ku mel ne Cheikh Modou Bachir moom sëriñ Fallilou nekkoon jëwriñu soxna si daa sonn lool ci bis bi li nga xam ne mooy ay daara yu ne ci ginnaawam kenn xamul nu mu toll ku mel ne sëñ Abib moom sëñ Fallilou moom itam nekkoon kenn ki soxna si li bootu ci ay daara ci ginnaawam kenn xamul nu mu toll kon daara yooyu bootu ci kilifa yooyu ak ñi mel na ñoom boo ko ci boole waatee daara yi kenn xam nu muy toll daara ju ci nekk nag sëriñ bi yu yónnendal ab enveloppe boo xam ne la mu ca def jëf yi sëriñ Tuubaa moo ci jiitu ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko njëkk jox ne ko lii defal ma ko ci mu soccaa def moom alalam njaboot gi soccaa topp te noonu mooy na soxna daal ndax soxna li mu ci daan def da daan bay ci aw ñax ñaxam di ko ca def kon sëriñ bi loolee def na ko ngir ñoom ñu gën a sawar ngir gën koo dëgg ngir gën koo dëgërale kaddu gi nga xamante ne bii mooy kaddu sëriñ bi la nga xam ne moo aju ci xasida tam noonu lañ ko defee la nga xam ne moo aju ci berne itam noonu lañ ko defee tànt yi tam du ñu tant ci biti cérémonie bi itam duñ ko def léegi ci ziar yi itam mu ne ziar yi ak dayre yi ku ne am na ko kon loolu itam daayira bu nekk ak ziar boo daan def mën ngaa wéyal di ko def tey sàmmonte ak fi nga xamante ne bii foofu fi la fi jamono ji toll kon loolu yi mooy kàddu yi nga xam ne moom la doon yëkkati sëriñ bi mi ngi ko yëgal itam nag ki nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi mu di président de la république Macky Sall di ko yëgal tam mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo yëngu ci réew mi yëpp mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax na ñu nga xam ne ñooy bokk taalibe yi parce que yéen ànd ak ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxe ànd ko ca njëlbéen ba ca jeex jàmm njëkk ci jàmm mujj ci wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu mbokk yi kàddu yaa ngi noonu jëm ci bis bu tedd boobu nga xam ne Serigne Touba Cheikh Mahamadul Montaxa dégg ngeen ni mu ko waxee ak ni mu ci jëfee yëkkati alalam def ci na ko liy jiitu ci bis bi kenn du ma ci jiitu te maa ko yow ñoo koy ànd ci njëlbéen ba ci sottantal la lépp yàlla na ànd ak jàmm ak xéewal ak tawfeex ci réew senegal kon nag sëriñ bi nee na ngi koy yëgal ñëpp ñi nga xamante bii daanañ jëf ci laylatul xadar ak fuñ mën a ne xam ne bis baa ngi noonu seen bisa soxna may mun a mi ko sosoon dimbale jaam yi rek a taxoon mu di ko def te daana xam ne ku ne ci liggéey bu yàlla nangu da nga koy xam waaye ku gis lay liggéey bi xam ne suñu borom nangu na ko soxna may mun a daana ko wax kon nag yàllañ ci tàbbal suñu jëf ak suñu ñàq suñu borom nangu waaleel ñu ko ci biir li mu nangul Serigne Touba tey suñu borom may ñu jàmm yoo xamante ne yaatu lool yàggal fi Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa nga xam ne mooy nuru mbas ne ci biir réew mi yàlla ko yàlla génne ci réew mi génne ko Afrique génne ko ci àddina bi suñu koor barakati cheikhuna ahmadul xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.